Bienvenue sur Salam Vision. ci yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi ay maqaam yàllaawo bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu buru yàlla doldinoo ay maqaam yàllaawo salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna dañu delluwaat di gën a amaat mbégte gu wér a wér waaw dañ ciy gën a santaat ki nga xam ne mooy Serigne tubaa santaat ci tamit suñu kilifa gu mag yi tey wax tamit réew tamit yàlla na am jàmm te yàlla na sax jëmm ji jàkkaarloon nag kenn doon ko présenté ci miim réew ci mim Sénégal sàkkantuma laan nag bitim réew sëñ xaadim bi nga xamante ni bëri na nag parce que am na ay secret yoo laa ko fekk mais nag ci biir secret ba daañu see ñëw dama koy bàyyi mu nuyoo nag képp ku ko xam-xamee ko alxuraan yéena ko gis noonu kaamir baa ngi noonu ci kawam yéena ko gis noonu téye na kulisam teg ko ci am na nag lu mu téye tamit nag timale ko alxuraan bi waaye dama koy bàyyi mu nuyoo sëñ bi ñu ngi lay siyaar waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu raditu billahi rabban wa bil islami diinan wa bi saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan barkeb sëriñ tuuba barkeb sëriñ tuuba mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bu ñu leen nuyoo <coughs> nuyoo lislaam bu sell bi leen balu àq te di leen ko baal ci gëj a gisee gi ak gëj déggante gi ak gëj xam ci lu ñu nekk waaye li koy faral di waxee rek ab sëriñ moom wërta am jot Ah, loolu la rek waaye ginnaaw bu loolu passé ñi ngi siyaare ñëpp di nuyu ñëpp di leen wax ni leen ñoo ngi waat eh, ci dëkk bu sell bi ci Touba ak Ndakaaru donte amoon na diggante yu gàtt yu ñu duggoon ci wàllu lalu waaye suñu borom matale na ko ban génnaat ci jàmm incha allahu taala alhamdulilah suñu xarit mi nga xamante ni yéen ko dégg nuyoon na noonu ba pare mais sëñ bi am naa lu ma gis tey nga téye ko li nga téye lan la. li nga xamante ni jamono jiñ toll moom moo tax kër yu bari moo tax léegi sëy yu bari léegi neexatul dematul li nga tee sëñ bi secret bi lan la ak naka nga ko liggéeyee ak naka la ko nit ñi jëfee parce que man li may déggee gars yi di ko lam-laamee kat naa sëñ xaadim sëñ xaadim mais sëñ xaadim li taxoon mu kenn gisu ko woon ndekete dafa am ci leneen loo xam ne da cee nekkoon mais sëñ Xaadim lii nii nga xamante ne tey moom nga indi pour bëgg koo jagleel ñi nga xamante ñooy askanu Sénégal ak askanu bitim réew lan la. waaw jërëjëf mbokk waaw lii moom yaakaar naa dañu koy présenter rek waaye bari na ñu ko xam waaye olof nag dafay wax ni maanaam jot jottali mbir maanaam du ak bari wax waaye bëgg ñëpp jariñu rek la waaw lii ñu yor mi ngi tudd produit boo xam ni suñu cosaan la tudd waaw lépp loo xam ni maanaam dañu ko ko defaree dafay nekk ci wàllu garab donte am na turu yàlla wu ñuy liggéey di ko ko mélanger ak moom waaye baas bi karité la képp koo xam ni suñu borom dafa dogal maanaam lii nga xam ni may wax daf laa dal maanaam bu suñu borom dogalee ci kàttanu yàlla nga am ko suñu borom mën na koo saafara ci kàttanam waaw képp koo xam ni suñu borom dafay dogal nii da ngay gaaw a egg ci sa soxna képp koo xam ni suñu borom dafay dogal ni maanaam sa ngeen baal ma ci kàddu yi sa wax maanaam dañuy jàngale rek ndax am jàngale moom bu leerul mën nañ ko bañ a dégg waaye képp koo xam ni tamit suñu borom dafa dogal sa awra dafa gàtt maanaam képp koo xam ni tamit suñu borom dogal na maanaam heure boo daanoo sa awra dafay dellu ak képp koo xam ni suñu boroom dafay dogal ni dangay ngay am soxna waaye ni nga ko war a sentir dëgg-dëgg doo ko ko sentir mooy mën nga dend ak moom sax te doo yëg maanaam bànneex képp ku mu dal ci kàttanu subhaanahu wa taala pommade bii nga xam ni mi ngi tudd suñu cosaan ndax maanaam sëriñ xaadim faal alxuraan mënta làqatu ndax ku ñëpp xam mënatoo làqatu lii nag képp ku ko false na nga xam ni du suñu yëf suñu produit suñu cosaan la tudd sama photo moo ci nekk ak samay numéro téléphone képp koo xam ni suñu borom dogal na nga soxla ko maanaam du lu seer dulu maanaam metti pour nit ki jëfandiku ci ndax ñun dañoo bëgg ñëpp rek am jàmm yu ñu yéene suñu bopp moom la ñu yéene jullitu yàlla yépp waaye képp koo xam ni loolu def laa dal dañ koy jël maanaam bala nga joteeg sa soxna nga diw ko sa xawra maanaam lu toll ci trente minutes soo ko joteeg moom waaye incha allah taala képp ku ko def sa soxna dina doyal lu yàgg yàgg yàgg te bu neexee yàlla doo pare incha allah. tey jii bi nga xamante ne tey yaa ngi ko ciy wax xam na nag saa am na ñoo xam ne nag ñu ngi commentaire parce que waxtaan bi neex na leen teewul nag yéen a ko gis noonu numéro yaa noonu ci suuf jëleen ko noonu ci suuf écran bi kii lépp loo xamante ni da koy jëf ngir askanu Sénégal am ci mbégte moom da koy yëkkati def ko. ndax kilifa la li muy def mën na ko te gëm na ko te xam na ko mais sëñ bi euh, secret bi maanaam cosaan bi lu waral baatu cosaan bi maanaam da ngeen a dugg ci àll yi xool cosaan yi nga xamante ni nit ñi dañoo fàtte démb ngeen jël ci loolu liggéey ci ngir askanu Sénégal mën see jariñu wala lan la. waaw xam nga suñu cosaan moom boo ko déggee rek mooy suñu cosaan moom mooy maanaam wax ju egg ci olof ndax ñun suñu borom dafa dogal ñu nekk ay jullit te lépp loo xam ne tubaab bi mi ngi koy jël maanaam di ko def produit di ko def comprimé nga gëm loolu ni lii boo amee bopp buy metti paracétamol boo ko naanee mu wér boo gëmee ni ñun suñu garab yi ñun yàlla may nañu ci ñu gëstu ci ba nga xam ne mën nañoo boole lu ci toll ci ñetti garab ba ñeent am nun ko liggéeyee am turu yàlla yuñ ci liggéey jox la ko nga saafarawu noonu rek la demee ndax comme que nit ki gëmul yàlla moom la suñu borom mën a may maanaam mu mën a defar comprimé mu lay faj kon estomac yow mi nga xam ne dangaa gëm yàlla nekk ci li yàlla digle di moytu ay crème kon kooku euh, suñu borom may na la lu kawee kawe ci moom moo xam nga xam ko def ko wala nga xam ko bañ koo def ndax képp ku yàlla jige rek maanaam am nga taw feex goo xam ni aaju bu nekk ci àdduna mën nga koo faj du produit bi rek lu ñu liggéey ñun ku ñu xam ci wàllu ñaan ci alxuraan bind jox nit ki mu sangoo wala ñu ñaanal la ci wàllu kurus la ñu ñëpp gën a xam waaye dafay fekk ni maanaam loo gis rek mu baax da nga koy fësal ndax bariwaa na ay kilifa yu ñu ci daan jëflanteel waaye ñoom duñu mën a wax ni mbir mi na fës ndax duñ ko mën a nettali kenn waaye ñoo ma wax ni ma lii daa war a yaatu ba jullit yëpp maanaam jote ci ndax yàgg naa dégg nit ñi naan dem naa ci fee faju pour wàllu pour wàllu ngóora am na produit buñ ma jox olof dafay wax ni maanaam ku nekk am na ku war a defar sa ay mbir képp koo xam ni sa ay mbir mi ngi ci man boo ñëwee dina la jox produit bi produit bi mën nga ko diwee chaque jour heure bu la neexee bala ngaa joteek sa soxna amul toog ba mu yàgg nga bàyyi ko mu def lim dindi defoon ci yow mu koy dindi amul loolu képp koo nga xam ni daal incha allahu la suñ borom dogal na nga jëfandikoo ko maanaam balaa poobee jeex ci kàttanu subhaanahu wa taala maanaam di nga sant yàlla bu baax a baax bu fekkee ne suñ borom dafa dogal nga dem ba maanaam nekkatoo góor ngeen baal ma ci kàddu yi maanaam bu boobaa traitement bi ñetti po lay doon waaw bu fekkee nag suñ borom dogal na gaaw a daanu rek ngay def man nga jël benn bi rek bala ngaa joteeg sa soxna amul benn jafe-jafe nga dugg sa ruq diw sa awra ba mu niin nga bàyyi quelque temps trente minutes nga dem jaxasoog moom soxna si bég incha allahu taala l'islam bég maanaam yàlla bég maanaam maanaam kër gi am jàmm incha allahu taala yéen ko dégg noonu li nga xamante ni sëñ bi wax na ko ci li nga xamante ni mooy li nga xamante ni mooy ci produit boobu parce que nag léegi nag jamono ji sëñ bi nag loolu dafa tas dëkk bi loolu léegi dafa tas dëkk bi parce que léegi boo xoolee léegi góor yu bari ne nañ jimbo yi la ñi ne leneen la wala lan la mais loolu li nga xamante ni mu ngi dal góor yu bari lan moo leen koy yëbbee ba tax lu bari lool di leen dal. waaw xam nga ñaare ñett da koy def nit ki maanaam dina nekk xale maanaam di sangu di fooyee awraam di jël saabu di ko ca def di ko fooyee ba suñu borom dogal mu doon nag maanaam tëlee dab ko. nit ki tamit rab dina ko jàpp maanaam nga takk soxna seen ay biddiw ànduñu rawxaanam man sa rawxaan heure boo ko tiimee doo sawar wala subaat heure boo ko tiimee rek suñu borom dafay dogal la nga yor daa di daa di wàcc waaw loolu daf koy faral di def waaye loolu yëpp maanaam saafara bi euh, ni nga koy gisee nii ci po bi maanaam lu ñuy diw la waaye ni ko liggéeyee dafa ànd ak turu yàlla woo turu yàlla yoo xam ni maanaam bu suñu borom dogalee maanaam nga koy diw maanaam suñu borom day dogal boo tiimee sa lépp luy gàllankoor loo xam ni dafay tere doo sawar loolu maanaam daf koy dindi te maanaam suñu borom dafay dogal awra bi day day dundaat bu fekkoon dafa tuuti di tuuti di dellu maanaam boo ko ciy diw suñu borom dafay dogal maanaam dafay noyyiwaat dafay dundaat yokk awra nag amul ndax nit ki si diitam mooy lemu boo gisee nit di la jox benn produit nga koy diw ba mu yàgg ñu naan yokk na sa awra dafa fekkoon sa siddit dafa lemu say sidditi awra nelaw maanaam sa sa awra dafay gàtt maanaam sa awra day gàtt waaye heure boo amee produit yoo ci diw yu baax yoo xam day dem ba maanaam siddit gi day tàllaliku bu ko defee sa awra day guddaat nag ñu ni yokk noonu awraam mais yokk awra amul waaw waaye foofu noonu foofu bëggoon naa fa sax tamit ñu ñëw fa tuuti mais parce que gis naa ay kilifa yu bari danaañ dañuy yokk awra ba tax léegi Sénégal ko tourné ñii kat am na ñoo xam dañuy yokk awra nii daan na yokkuñu awra mais loolu c'est vrai parce que nee nga am nga loo xamante ni maanaam nee nga sit gi day nelaw secret boobu nga dem ba nga xam ne da ko ci gëstu xam ko ci ba ko ci mu leer la loolu maanaam ci lan la quoi ci lan nga ko gëstu ba xam. waaw xam nga olof dafay wax ni arxuraan bàyyiwul dara olof waxaan ni maanaam garab bàyyiwul dara parce que maanaam yaa ngi romb garab boo xam ne toujours. yow aajo joo am maanaam ci wàllu yaram mën na koo faj nixmaa gii ngay toog di féexlu fi ne lu baree bare mën na koo faj ci sa yaram kàdd kasaalika séng gii ngay gis lu baree bare mën na koo faj sa yaram sump bii nii doomu sump lu baree bare mën na koo faj ci sa yaram limon bii nii xob yeek doom yi lu baree bare mën na koo def waaye olof dafay wax ni maanaam boo xamul neel xaw ma waaye kenn xamul wala kenn mënul kenn du ko wax waaye lii ñuy wax ñun am na fu ñu ko teg ndax lépp lu ñuy wax duñ ko seedal kenn ku dul yàlla suñu borom subhanahu wa taala donte réew mi jaxasoo na naqare naa waxee waaye nag ñun jariñ rek moo tax maanaam ñuy wax képp ku bëgg a jariñu ci kàttanu subhanahu wa taala bu ñu jëflantee ci produit yi di ci sant yàlla bu baax a baax te li ñu koy defaree li ñu koy weccee ko wax dëgg yàlla féerul ndax dañoo bëgg nit ñi jariñ ci te maanaam képp koo xam ni tamit suñu borom dogal na nga am ci yitte moo xam foo mën a nekk ci bitim réew Angleterre fu mu mën a ne ak biir réew mi euh, livraison à domicile lay doon maanaam heure bu ñu déggantee dina la suñuy ndaw dinañ ñëw ba sa kër ci kàttanu subhaanahu wa taala indil la ko incha allahu taala ñaari bikit la am benn bi mi ngi Touba marché Ocass waaw benn bi nag mi ngi Ndakaaru yenn ci produit yi mu ngi ñu yor suñu kër ñun suñu kër Sëñ Xaadim Fall alxuraan képp ku ci soxla daal boo ñu woowee ci kàttanu yàlla foo mën a nekk di nga ci mën a jot bu soobee yàlla. alhamdulilah yéen a ko dégg loolu la sëñ bi wax ko dégg nee na nag numéro yaa ngi ci écran yi moom ngeen gis noonu képp koo xamante ni nag Sénégal nag am na ñu bari ñoo xamante ni nag surtout ma laa nag yi nekk ci réew mi borom doole yi ñi nga xamante ne dañ koy soxla mais dañuy bëgg di ko jëfante mais dañ koy bëgg ngir maanaam ngir nit bañ leen a xamal dara tey kilifa yi kilifa yi mag yooyu noonu dañ leen di tudd ci wàllum nguur yeeg yooyu noonu tey ji ñooñ bu demoon tey ji ba soxla ko tey ji ngi bëgg te ku leen ku livrer est-ce que sëñ Khady pare na pour maanaam moom déplacé wu dem yëkkati loolu yëbbul ko kilifa googu nga xamante ni moom moo ko soxla te bëggu nit xam waaw loolu loolu mën naa nekk ndax ñun moom gis nga maanaam nit boo xosee ba ni da ngay faji aajo rek maanaam na lay aajo nit yitteel moomatoo sa bopp ndax nit ki moom boppam mooy kiy nekk ci mbiri boppam waaye kiy nekk ci mbiri nit ñi kooku moomatoo sa bopp nit ñee moom nit ñee la moom bépp aajo boo xam ne nit am na ko boo ko waxee rek incha allahu taala dem ci def yitte bu baax a baax incha allahu taala ba aajo jooju nga mën caa sant yàlla bu baax a baax waaw bu fekkee kilifa goo xam ni bëggul sax ñu livreel ko ko ci wàllu comme noonu nga ko waxee bu ñu ca déggante ñun ci kàttanu yàlla dinañ taal suñu oto ba egg këram bu neexee yàlla maanaam ñu jëflante ca ak moom ci sekkare boo xam ni man lay doon ak moom ak yàlla subhaanahu wa taala bu neexee yàlla. yéen a ko dégg parce que bu ñu def émission dafa am ñoo xam ne sax dañuy commentaire waaye ci beneen numéro la ñuy commentaire parce que ay boroomi doole lañ parce que nit dëgg neexul de ñun dañuy feebaree kilifa diine yooyu wala ilaa ponkal yooyu ñoom tamit noonu la ñuy feebaree. waaye nag dañuy bañ tamit ku leen xamal dara euh, wax na ko waaye nag dañ koy bàyyi mu tàggatoo parce que li tax ñu ne dañuy tàggatoo parce que li fi nekk moo bari am na loo xam ne nag dinaa ci xuus tuuti wanaat leen ko nag après gis ko noonu ci écran bi parce que produit yi moo lëmbee réew mi moo yaata réew mi te ñu bari soxla nañ ci tax taxamuñu fu ñu koy wutee ñi ko am nag bari na mais produit bi original bi fii la am ci biir kër gi dama koy bàyyi moom mu tàggatoo. waaw li tàggatoo rek ni ma koy defee maanaam di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di wax ni daal euh, li fi nekk du ay fo te du ay naxe du lu ñàkk fayda ndax nit ki boo demee ba sa tur euh, ñu koy dàkkantele alxuraanil karim kon yaakaar naa lu ñàkk fayda walay fo maanaam moom boo ko paasee wutit maanaam suñu borom paaseloo na ko sa ab turit maanaam paaseloo na ko ay la ñu cee dolli mooy maanaam di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di wax ni daal euh, mi ngi fi rek képp ku ko soxlawoo daal bu ñu déggantee ci numéro yi ci kàttanu yàlla noo ko bëggee xàmmee rek ak noo bëggee mu leeree ci yow noonu rek dina ca leeree dina waxtaan ak yow bu neexee yàlla euh, incha allah taala loolu lañuy tàggoo rek di ñaanal ñëpp rek ñu wér am jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilah di gën a amaat mbégte di santaat ñi nga xamante ni ñoom ñooy sponsor yi yéen gis noonu ba beneen yoon ci beneen émission mën ak yéen la wasa.